jërë ngeen jëf mbokk ñi siiwur ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte jàkkaarloo ak yéen seen seen leader bi di people 221 ñu dalal koo xam ne nag kenn dootu ko présenté ci réew mi waaye kenn dootu ko présenté ci sunu kër gi mu di Cheikh Ahmed Cissé borom Andala Buri moom lañ fas yéene dalal sunu kër gi Cheikh bi dañu lay bàyyi nga nuyoo ñi di la siiwur maa ngi lay fay maa ngi sant suma bopp di gërëm suma bopp ci am jom ji ci liggéey bi ci xam suma bopp suma tunni bu rafet bi maa ko solal suma bopp maa jënd maa fay ñëw maa ko moom mais dafa rafet da nga sañse ba pare commencé gu ma mu nekk xam nga xale man la ñuy topp bi benn la rek maa ngi jënd 30 yére julli daal 10 dara trois pièces 10 jasneer yu yem ak 10 tenue yi. ci julli gi waaw parce que àndalaa mu ngi dox doy waar a ngi dox. d'accord man xam naa damay liggéey. d'accord man xam naa léegi liggéey boobu moo ma indi lii nii ma sañca ba mu baax nii maa ko moom kenn gërëmuma kenn. d'accord suma bopp. d'accord laay gërëm. d'accord xam naa ñun people 221 am dina ci jël ñeent buy dem bu soobee yàlla euh, donc cheikh bi fi may njëkkee tey ñu am lu ñu war a waxtaan. billaay lii dafa rafet. <laughs> non. non dafa rafet man. nga ne foo njëkkee. fi ñu njëkkee mooy li nga xam ne moom laa bëgg ñu waxtaanee ko tey mooy éducation sexuelle. loolu mooy lan ci olof. éducation sexuelle mooy que tey ci wàllu sëy. ah hmm. naka la ñuy sëyee. sëy dafa rëy mooy takk jabar wala lan. non sëy maanaam rapport. yaa yaa ngi delluwaat ci français. Euh, laalante. Ah, laalante nii. laalante. ok <laughs> ubbi naa saison bi. laaj leen ma ma tontu leen. rapport français la sexuel français la. non dañ ciy dañ ciy xool Jamra moo tax ñuy ñuy ñuy limité wax. non non non non non non Jamra. Jamra léegi dafa centre communication. non non Jamra du diine du tarixa te tarixa yaa ngi fi diine yaa ngi fi mosuma wax lu ma génnee ci diine. Jamra c'est une organisation ngir taaral aadaay Sénégal jàppale kilifa diine ci seen liggéey hmm? mais Jamra kay la bañul xam-xam ku toog ak borom xam-xam di ko laaj laaj ko li nga bëgg a wax. xam mu xamal la ca te man moom su dama am xam-xam. parce que léegi nag bi mu nekkee jamono ba tey nante yi dégluwuñ ko kooba yi déglootuñ ko kàppoo yi léegi kenn déglu non non non tey leen ma gën a topp. ma dimbale leen yéen comme yéen da ngeen doon naa fexe ba mënu leen a laaj man ma doon guerrier ak ku baax ak ku bëgg askan wi xam ba ma tontu leen. gis nga lii banaana la comme yow da nga bëgg ñu wodd kàddu yi te bokk Jamra moo warut ñoo mën a teree liggéey waroon ñoo mën a sensibiliser nit ñi ci wàllum sëy. Mhm. te dafa baax gis nga banaana bi dafa am ñoo xam ne seen banaana dafa dëng am ñu seen banaana jub bu dëng bi baax na mais su dëngee lool baaxut. Mhm. mais bu dee dafa dëng bul am ñaari xel. am naa garab gu tudd regu mooy réyal guddal da nga ko ciy maase su ba ngoon di ko jubbanti sa awra bi day jub sa banaana bi day jub nice. Mhm. yaa ngi dégg donc dafa am solo. benn ba ca des su fekkee bu ndaw bii nga am ba tey bonul na dëgër rek te mën a def liggéeyam mais nag su fekkee bii nga am booy diw suma bos dafay dem ba gën a gudd gën a rëy su dee dafa dëng nii nga koy diw dafay dem ba xaw a jub nii baax dëgër léegi nag dafa am solo yéen jigéen ñi damay bëgg ngeen di jël seen temps xam nga tey banaana. Hmm, nan tey fi seen xel dem baaxut fu mu nekk wodd naa kàddu yi ba mu yiw lii banaana la ku xamul xamoo bu fi kenn nekk naan sëriñ bi dafa caga cagawuma banaana laay wax xale jigéen yi da gis banaana bi nii gis ngeen. ci gis ngeen. banaana dafa sensible amul yax banaana amul yax yaa ngi dégg siddit la rek te nu mel ni lu nooy bu leen ñëw rek yéey ko dafay métti. am na ci solo ci banaana parce que banana dafa nooy nooy boo xam ne Ablaye ay Ablaye Ablaye boo daanoo rek nga dugg ci wanag bi sangu gis nga nii bu leen ñëw rek yéy baaxul banana dafa sensible dafa sensitive noo ko defee rek baax na tooyal bi tam yàqu ko bonul ci lekkum banaana mais ñëw rek na nii baaxul franchement lii moom baaxul moom. bu leen koy defee nii yéen suma taalibe yi donc ku bëgg sa banaana bi rey di dijji rëy 77 478 12 12 maa ngi garab goo xam ne ah huile la ak pomaat doo ko diw doo ko naan doo ko lekk danga ko ciy diw mu màgg waaye nag bu guddee ba rëy mënatuma ko wàññi. Mm-hmm. loolooy banaana kon wan naa leen nu ñu war a lekkee banaana waaye yéen ñi am banaana fexe leen ba mu gudd rey Mhm. waaye nag bu leen fàtte mukk dina lislaam daf ne njaalo dafa xaram maa ngi sensibiliser nit ñi ci bàyyi njaalo waaye éducation sexuelle lu ñu war a xam la ndax bu jaaree yoon rek néeg ba neex mhm. xanaa xamoo jigéen mën ngaa ñàkk a xam nuñ ko war a laalee nga tër ko di ko laal mu métti muy daw malayka yi yàlla bind si sànñum yàlla di ko rëbb lu mu jur du barke mhm. dafa fekk bañul mais dafa métti foog ngeen doon ay nante xàmmee yuuxu bu neex ak yuuxu bu métti bu neexee demal bu méttee teggal sa tànk oto boo ko accéléré ba machine bi di yuuxu ngir mu dund yàgg da ngay relanti dee leen relanti ci la bokk mais noo xamee yuuxu bu neex bu bu naqari expérience la boo ma toppee xam ko xam nga tey jigéen ñi moom maanaam dañu naan yàpp nooy na waaye paakaa ñawul jigéen ñi léegi lu leen doy sax moo bëreetu dañuy simuler similation mooy di yuuxu ngir may góor gi confiance ak xememteef ci lu muy def mais neexut mais yuuxu su àndeek biiñ dafa métti waaye su àndee xulli bët yeeg ubbi gémmiñ méttiwul ak façon bu son bi ñëwee waay wuy sama ah. non non méttiwul dafa am ñu rëy làmmiñ am ñu mën a simuler am ñu mën bés am na mbër yoo xam ne signature contrat bu ñu waxee mais bu ñu duggee làmb jo duñ ko bëre donc dafa am solo pom saa yu ma ko xoolee suma xel ñaaw pom pom a ngi bu leen di bës pom bu leen ciy dugal seen baaraam bokk ci day indi infection ci pomme bi gis nga boo xaree pomme bi dafa am ay kubéer ci biir comme ni nga defoon ci banaana bi ngay def ci pomme bi ba ndoxi pomme bi génn nga door a jël banaana bi mel ni ku koy nuyu simlaayoo may taagumbaar di ko ci yéegal ak a wàccee ci pomme bi wi laa wax wax ji ñaawul ku sa xel ñaaw nag sa engage que toi mais je dis simplement à la fruit xale yi mënuñoo xam li may wax kon wodd naa kàddu yi nit buy def lu bon ba mu yàgg muy def lu bon da ngeen koy encourage mais su ngeen ñëwaatee di ma saaga damay delloo bu mu ci mbooy mbooy donc boo ko màccee ba pom bi tooy nga jël banaana bi di ko ci riib di laal ndànk boo wàccee da ngay gis nokki bi aju ah, nga bàyyiwaat xool ko ndànk xam nga. xel mi ma xel jéggi na fruit yi noonu ngay toppatoo pomme ak banana et c'est très important sax mm-hmm. mais su fekkee ne sa banaana dafa nooy ba mënoo. man de maa lay xamal ne depuis 2019 laa fi indi ay garab ma ne ku ci jënd benn butéel waxuma nga naan ba mu jeex de dafa bari. naan kaas bi te banaana bi dëgërul ba nga mën a rëkkante ba ndaw si na la bàyyi ma indi waatal butéel bi la nga ca naan may naa la ko ci xol bi sax ma delloo la sa xaalis. Mm-hmm. moo tudd àndalaa vingt bi 25000 bii 15000 numéro bi moo affiché ni boo ci wootee du man ngay jot mais ko la ci jaay rek maa gàddu moo ni back garantie la foo nekk ci àddina ñu livré la. Europe foo munti nekk nangeen koy bàyyi xel mais éducation sexuelle communication ci la bokk. sans communication da ngeen di mel ni caga cago cagu cagu mooy kiy fay caga caga mooy ki ñuy fay baaxul. Mm-hmm. su boobaa sax communiqué ngeen par xaalis mais baaxul. sa jëkkër sa jabar war nga koo jox xememteef dans la journée soo toogee ba mu yàgg ñu ngi nouvelle technologie bu njëkk jëkkër da daan wàcc nga ubbi becco yéen a ngi fàttaliku ubbil mbal kanjaay mm-hmm. di kooraay su yàqoo nga defaraat am bu bees loolu lan la photo amutoon danga daan jugee tool ñu ubbil la becco bi nga xool raay naan ko bu guddee bu ma la jàppee c'est normal ci biir néegu sëy et c'est pas méchant toogal ba mu yàgg nga yóotu sa téléphone bi na ko ci raj foto ko fekk yaa ngi ko épilé ba mu rafet xaw ko tàpp tuuti wan ko mu muse na ko ça gis nga bulay wax ça va bien <laughs> banaana baa nga yëngatu ci biir góor góor sëriwul kooku dalay xemem bu waajee wàcc soo koy woo rayal sa baat bi nekk hmm, ah. mel ni ku xamut li ngay wax dafa am fu muy yóbbu sixième sens bu ñëwee fekk nag pare nga lekk xale yi nax nga leen bañ tëdd wala tegal nga leen miki nga def sa petit bikini ubbil ko bunt bi bul toog rek akolaat ko xawal a reewantu ba mu ñëw sa kaw góor na la namm moo tax soo maam noonu góor bu la bëggee bu ko seyal fexeel ba mu bëgg la bay waaja dee nga seyal ko bis bu la bëggatul waaj a dee nga des fa su boobaa jëlal tànk yi xoojal ci ndox mu tàng pareel joxal mu lekk bàyyi ko boppam moom bu la soxla mooy dugg brosse fekk la ci lal bi laa nga waxtaan bu mu amul soxla nag su boobaa foofu de leen fen rek yàlla baal na leen lépp bàkkaari kaw lal yàlla du ko bind. ñu jàpp la point ba nga mayee kër gi <laughs> boo jeexee rek yaa kër gi na ko yaa gënal àddina lu ci biir def naa erreur ñàkk laa xam dootuma takkati ku yàlla bind suur naa jigéen yaay suma yaay xam nga waxoo dëgg mais fen buy neexal xol la mm-hmm. donc nii moo tax suma groupe whatsapp bi. jigéen ñi faaw ngeen ñëw adhéré bokk ci góor bokk ci jigéen ñi kese groupe baa ngi wàcc su ma numéro personnel nga may message nga dugg ci 78 471 57 01 ba ma vérifié ne jugoon nga ma ne la ràjj ci groupe ba foofa wàcc ay docteur yu xam jigéen ay psychologue ay sëriñ ay ustaas no groupe boobu ku ci bokkul mënoo say yow te amul sëriñ bi ñaanal ma amul ma weexal la amul dara da ngay déglu jëfee ngir dama bëgg kër yi neex xam loolu mooy liggéeyu Jamra mm-hmm. kër yi neex dëkk bi neex am jàmm lii rek la jàmm la liggéey te man ambassadeur u jàmm la laa donc maa leen di ñaax ngeen may topp fii people 221 ku am question booy laajte bind ko ci commentaire yi dañuy ñëw chaque semaine di leen waxtaanal ci wàllum sëy mi nan leen war a sëyee kan moo war a sëy waaye fi ñu koy tëjee mooy duñ sensibiliser kenn ci njàllo ndax dafa xaram d'accord duñ sa ku am jëkkër mu dem mooy ku am jabar mu mooy waaye ki am jëkkër am jabar wala ki bëgg a sëy bëgg xam ni ñuy sëy kooku la ñuy sensibiliser ndax du lu bon. Mhm, ab léegi léegi benn bi ma desee mooy. lislaam day wax ni sa jabar boo ko takkee lew na la. Mhm. léegi lew na la boobu noonu est-ce que tey day tax yow. Euh, noo nu mu la neexee rek noonu nga koy sëyee sëyee moom ci ginnaaw ak nu mu la neexee rek ak foo ko bëggee rek nga koy sëyee. position boo def ak sa jabar sunna la. li xaram mooy sa awra bi dugg fa muy demee toilet mais position yàlla xaraamalu ko bu la neexee taxawal fob ko mu jël loxo mi lonk ko sa baat ba foofu baax na bu la neexee six neuf boobu baax na bañuma ko li anglais da doggy style bañuma ko léegi-léeg nga ne copp ci kaw mel ni pitax bañuma loolu bañuma it bu njomboor mooy kuy ki nekk ci waañ bi dem war a liggéey rek génne fermeture bi rek ah bañu ma boobu sëriñ bi bañul boobu man daal li ma bañ mooy li yàlla bañ mooy fa muy demee toilette yàlla bugg ko laalante bëccëgu weeru koor bugguma ko yàlla buggut ko jigéen bu gis régal muñ ko soo ko mënul na la susee gémmiñ gi gisul dafay joxe feebar dafa salte te yàlla buggut ko jigéen ju am doom muñal ko ba deret ji jeex lii daal laa bañ man daal lu yàlla bañ laa bañ mais lu yàlla daganal ku taxaw naan teg yi nag rafet ak cagaak ndangam su may nekku ci gënuma yàlla te yàlla ko daganal moom daal jigéen ñi seen tool leen nu leen neex ñëwee leen waaye yéen it am leen soo xam ne tool yi jigéen ñi ngeen fu ñu ko soxlaa jox leen ko bu dee da ngeen nooyal dëgër solution jeex na stress moo la jàpp wala ballonnement wala sa deret a setul docteur awra yaa ngi ambassadeur national de awra national maa ngi àndalaa buri laa la jox wala doy waar mu jeex numéro yi affiché ngay woote kon looloy tontu bi képp ku am loo bëgg laaj ci wàllum sëy bind ko ci commentaire yi dinañ ko collecté Ablaye dina ma ko laaj ma leeral ko. Ablaye xam naa ne Ablaye rek. Ablaye mooy laaj mbirum sëy ci réew mi. <laughs> Ablaye ku xam sëy la te ku mën a sëy la Mara ñëw na ku mën a sëy la rajji rajji ji waaye Ablaye Mara dàqu la sëy mu naan quatre-vingt-quinze yi yow juddoo quatre-vingt-quinze soixante-seize nga judd màggat nga yàlla na seen jàmm yàgg.